étudiants yi nag bi biñ ñëwee fii visité gis nañ conditions yi ñu nekkoon gis nañ également kër gu bees gi conditions yi mu leen di yóbbu waaye gis nañ également ne liggéey bi dañuy de démarrer rek waaye matagul incha allah ñu ngi jëlaat beneen engagement mooy pour poursuivre liggéey bi bâtiment bi ñu nekk nga xam ne biñ koy concevoir pour mu nekk immeuble R plus 3 la. incha allah dinañ préparé ba nga xam ne vacances yi rek dinañ commencé waat yëkkatiwaat bu ko defee étudiants yi mën fi ñëw nekk dans de bonnes ii maanaam le maire Cheikh Issa Sall daa am fu ñu jëlee am fu ñu yóbbu mais maire Cheikh Issa daf ñoo àndil maison bu mel nii tey du ñu def lu dul di ko sant di ko gërëm ndaxte buñ ne jàng dañoo jóge Mbuur ba Bambey bàyyi suñu famille bàyyi suñuy lépp daal di ñëw fii. kon tey le maire Cheikh Issa mu daal di jël li nga xamante ne maison tabax ko ba mu yànj daal di koy jël jébbal ko li nga xamante ne moom mooy équipe amicale bi pour lan l'accueil des nouveaux bacheliers pour lan accueillir ci li nga xamante ne moom mooy l'ensemble des étudiants ressortissants de Mbour à Bambey kon dañ ko koy jaajëfal incha allah